mbokk yi seetaan seen télévision MKTV ñu ngi leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi fii ci Touba ci barab bu tedd bi nga xam ne mooy jullukaayu it bi nga xam ne mi ngi ci penku jumaay tuuba dox diggante daari kaamil ak jumaa ji boo jëmee ci armeel yu mag yi tey nag di bis bu màgg ci lislaam di bisu tabaski di tombeek altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin atum 2024 di fukki fan ci weeru tabaski ñu fas yéene nag ànd ak MKTV ni ñu ko baaxoo defee ci événement yi am yëpp ci jumaay Touba xam ngeen ne MKTV lépp li am ci Touba rawatina ci jumaa ji li ko wër loolu dañuy fexe ba euh, taalibe yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ko jot en direct lëkkaloo ci nag ak seen télévision Lamp Fall TV mi nga xamante ni partenaire Muxaddamatul Xidma la incha allah euh, ñu nekk ci jullit iit yi jullit tabaski yi fas yéene lépp lu fiy xew ñu ñu jottali leen ko. xam ngeen ne nag euh, ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am di tarixatul muridiyya di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér moom mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba gannaaw bi mu joxee ndigal ci ne waxtu julli bi nañ ko def 9h30 ci nag ci la taalibe yëpp nag ak kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk jëkk bi nag tàmbalee ñëw ci barab bu tedd bii. xam ngeen ne jullit tabaski bokk na ci événement yi gën a mag ci lislaam ndax bis bu mag la boo xam ne euh, sunna Seydina Ibrahima salaam. lañ ci fàttaliku waaye itam moom lañ ci yeesal waaye itam di ci roy yonent bi sallallahu alayhi sallam kon nag di bis boo xamante ni bisu euh, njëggal la jëggalante la waaye itam bisu euh, xéewal la bisu ndokkalante la waaye itam bisu dimbalante la kon nag euh, MKTV loolu moo tax mu ni mu ko baaxoo defee ci korité ak tabaski yëpp mu ñëw ci barab bi installé fi ak équipe ak ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale ci liggéey bi ñëpp ngir mën a euh, fexe ba lii xew ci barab bi ñu jot ko incha allahu taala kilifa yi tàmbali ñëw ñëw euh, ci barab bi waaye itam ci kanam tuuti Cheikh Mouhamadul Mountakha ñi nga xamante ni mooy xalif général des Mourides dana fi teew ak seen Bassirou Abdoul Khadim mi nga xamante ni moo yor kàddoom waaye itam wàllu administration bi itam lu mel ne préfet bu Mbacké ak sous préfet bu mi itam danañ fekke si julli gi mboolem autorité administrative yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi itam danañ ñëw teewe si julli gi fii ci barab bu tedd bii di jumaay Touba bu ko defee itam euh, organisation bi itam mu xaddamatul xidma ni mu ko baaxoo defee defee na ko noonu mooy booleem ñi nga xam ne ay membre am lañ euh, wut na leen ñu saytu leen ñu ñëw ci barab bi depuis démb euh, setal seetal barab bi li mu laaj itam ci ay matukaay yëpp ñu lal moquette yi defar sonorisation bi waaye itam lépp li nga xamante ni itam moo jëm ci wàllu organisation bi ci wàllu sécurité itam ñu ànd ko ak police ak gendarmerie yi nga xamante ni ñoom la ñu faral di àndal liggéey bi kon daal ci kanam tuuti incha allah lépp li nga xamante ni mooy xew fii di ko tàmbalee ci julli gi ba ci xutba ak imaam bi nga xamante ni sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir moom moo koy jiite ba ci euh, ndénkaaneel sëriñ bi loolu lépp dara du leen ci rëcc incha allah danañ itam bu ñu noppee tam daañu am ay interview yoo xamante ni ci kilifa yi fi teew ci jàngat euh, ndénkaanul sëriñ bi ak xutba imaam bi waaye itam danañ am ay interview yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu liggéey bi kon incha allah télévision euh, MK TV àndandoo ak Lamp Fall TV dinañ lépp loo xamante ni mooy xew ci jumaay Touba da ngeen ko jot ni ngeen ko war amee kon ci kanam tuuti incha allah danañ ñëw ci li nga xamante ni mooy organisation bi waaye itam danañ ñëw ci interview yi kon du ñu def lu dul bàyyi leen ak sëriñ Modou Sy mi nga xamante ni moo yor njàng mi incha allah ba ci kanam. seetal ko fu mu toog sëñ Ba المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Akbar.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 والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم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 وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلاسم ما أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي السور وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان بمت من كفاني ذوي الحسد والعدوان bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru lakum alaman wa kabada wa anhaakum an fiili kulli maa lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ilaa gayrikum al ajra walridaa walsawaaba wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة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 سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه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 بجاه ذي الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم mbokki jullit yi noo leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen jéggul tooñ bu fés ak bu fésul gun yëg ak gun yëgul ci bés bu tedd bii xaasatan ak ci fukki fan yu tedd yii amatan nga xam ne dees ci ful yoolu jëf ju baax laa qadarallah ñu ciy fulit bàkkaaru safaan ak mbugal ga ca baaxoo am bu àndul ak njégal yàlla na jullit yépp am am njëggal amul nag jenn jëf ju baax ju ab jaam mën a jëf ak lum rëy rëy te yàlla farataalu ko ci moom man ca amee lu toll ne li ku tabaski mën a amee ci tabaskiyam bu ko yàlla nangoo ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja ci luñ mën a tabaskiyee te fekk nag loola la am te mu yéene itam la gën a mat ak nonte ne itam ki tabaski wul daa jëf-jëf ja gën a rëy ci lu jaam mën a coobarewu jëf ko ki jëf-jëf ju rëy ji bu tabaskee ne moom nag te moom it yéeneem sell yàlla rekk tax nga niilul yàlla daal di ñëw nag mu war a nangu dogalu yàlla dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim yàlla dara waru ci kenn wala lenn kon sañ naa gën a leen te la ko soob te moom rek moo jagoo lu mu bëgg a def man te du diisoo ak kenn faalu li ma yurid yafalu ma yashaa wa huwa ala kulli shay'in qadir yonente yi mu ci nit ñi sax yemalewu leen juróom yem ca tànnaa nit yemalewu leen tilka rusulu faddalnaa ba'dahum alaa ba'd wali yi noonu malaaka yi noonu laneen it noonu rek lay demee kon ku mën a tabaski ak tabaskim ci bis bii na xam ne dara mënu ko wecc maa amila aadamiyun min amalin yowma annahri ahaba ila allahi min ihraaqi dam innaha la taati yowma alqiyaamati bi quruuniha wa ashcaariha wa arlaafiha وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا lim koy mën ci xar mooy mu am at bu jàppandul mu am fukki weer juróom-ñetti weer ba ci juróom-benn weer lu néew néew bu dee ci bay mooy wu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteel bu duggee ñeenteel gënati gëléem gu dugg juróomeel bu duggee juróom-benneel gënati lu ci mën di doon it bu mu am jenn ayib ju fees di bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara ubnu azib bu mu am it ayib ju ak jenn ci ñoom ayib ju yees ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp yooy bu mu ci ayib nag ju fees ak ju muxtaar maa ngoogu bu ci boolee am béjjën jaxase weex ak te ñuul ñuul ya bañ génn la war bët ya la war ga biir ba tànk ya daal nekk tànneefu tànneef ni ki mu dikk ci xadiisu sayida Aïcha ba te mu indiloo ko ci paaka bu mag daasloo ko ko ci doj ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko moo waa këram te ñooy ahlu kisaa am na ñu ko yaatal def leen juróom-benn am ñu ko yaatal def leen fukkam ñaar am ñu ne ku bokk ci bani hasim rekk te gëm ko ci la am sax lu weesu loolu waaye da lu lu mu gën a néew la wax ci di gën a maanaam yenn ndax day laaj ku ci bokk ku ne sell gu mat sëkk mu teg ca ñaan yàlla mu nangul xeetam bu عن هروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم الوديان ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به mu war nag képp ku ko man tey asgar di ab jullit moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi mu dëkk la wala ku nekk ci tukki te du aj fii ba sawaar di jot fi la def gi gëne kum jàppandoo ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu ko def fu ko fi defee te du génn te du guddi baaxul def gi lu mu gën a jege yor yoru tey bi ci lay gëne ba mu des ëllëg ca gannaaw tisbaar bu boobaa baa yor yoru gannaaw ëllëg lañuy gën a taamu ci waxtu woowu ak doonte ne moo gën a sore tënkoon ci bis bi dundal ci sunes ku tedd ki sallallahu alayhi wa ni ko yenn waroon xam-xam waxe te mooy fàttali xamle lu aju ci tabaski bi bu dee koor moo ci mbirum koor ndax du ñàkk ñu fàtte du ñàkkit ñu jutul woon a xam sax bay fàtte te mooy roykaay bi ci lépp lu mu daa def te jegoowu ko moom kepp yàlla na yàlla nangul gi ak ya ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rek te yàggal fi suñ kilifa gi yàggal mu it ci gannaawam te may nu wér ñun ñëpp may nu njub léegi ñu jox kilifa gi kàddu mais jërëjëf kon mbokk yi ñu doon seen MKTV gis ngeen julli gi macha allah filla alhamdu Cheikh Mamadou Mountakha ñëw na maam bi Serigne Fallou Cheikh Abdoul Khadir mi nga ni moo doon jiite julli gi gis ngeen ko ak kàddu yu ndénkaan yi xam ne ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha moom la yëkkati muy kàddu soññee soññ nit ñi ci tuub ak jaamu yàlla ak jëf ju baax surtout soññee ci bu baax a baax muy kàddu yu am solo waaye nag ni ñu ko baaxoo defee ñu ngi fi ak Serigne Afia Bousso al imam mi nga xam ne mooy njiitu daayira Muxaddamatul Xidma moom itam nii ba war a yeewee dana yëkkati ay kàddu yoo xamante ni dana jëm ci mbokki taalibe yi rawatina euh, ñi nga xamante ñoo doon liggéey ci liggéey bi soññaat leen daggiwaat leen ñu gën a yeesal seen pastel kon a afi yan kàddu ngay ngay ngay ngay ngay soññi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu Cheikh Abdoulahi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ndokkeel ñëpp di jël Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaan suñu borom tëbb ko katt nag wér jàkkoo teewee di ndokkeel julli ñëpp te mu fi mën a nekk dellu rek ni ko baaxoo waxee di rafetlu liggéey bi bu baax ndax macha allah tege na ci aw yoon amul benn sox-sox ñu ngi ko yaakaaroon ñëpp am na am nañ ko mu ko raw ko ñu ngeen di sant am leen ñaan la ci ñaan ñu dajee ngërëmu suñu boobu ak ngërëmu sëñ Tuubaa di wax jazaakumullaahu xayran jëf yaa ngi ko déwén suñu boobu dool di am ci réew mi dal ko ci réew jullit ñëpp doon naataange ci réew mi def ko ci réew jullit ñëpp dañuy doxum jàmm moo xam bu ànd benn benn benn gàkk du ànd ak benn coono barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa al imam bi nga xam ne moo jiitu daayira Moukhaddamatoul Khidma gis nga ko niñ ok kon mbokk yi gis ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni sëriñ Afi yëkkati na ko muy kàddu yu soññee kàddu yu ñu gën a góorgóorluwaat jëmaat ci jaamu yàlla ni ko Cheikh Mamadou Mountakha waxee ci làmmiñu sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo doon jiite julli gi gis ngeen ko jabootu Cheikhul Khadim yëpp teew sëriñ bi moom itam euh, malgré mage géeg yëpp waaye euh, bëggal taalibe yërmande moo tax moom itam mu ñëw wax dëgg yàlla ànd fekk si julli gi waaye itam euh, joxe ay kàddu yi sant ak kàddu yi ñaan ak kàddu yi soññee kon euh, lii moo doonoon julli gi nga xamante ni moom lañu leen doon jëlal fii ci jumaay Touba Euh, ànd ko ak MK TV ak ay partenaire am rawatina Lamp Fall TV yi nga xamante ni ca euh, huit heures ba léegi ñu ngi woon ak yéen ci li nga xamante ni mooy ambiance julli yi ak réaction yi nga xamante ni jóge na fi xëy na julli tabaski nag day waxtu wu xat woo xam ne bu imaam xasee rendi ñëpp dañuy daal di bëgg dem seen kër rek rendi ne bëggoon nañoo gën a yaatal sax ci ay yeneen réaction yoo xamante ni am na ci biir euh, ñi fi teewoon ci ay kilifa moo xam kilifay diine yi la wala administration kon ñi ngi leen di wa antum bi xayrin yàlla nañ ko teewe ay déwén suñu borom nangul ñu jaamu yàlla gi barke Cheikhul Khadim mi ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal bonne fête de tabaski wa kullu wa antum bi xayrin assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu أجل إلى جهاتي فعهدي ليس ناولت بالله في اجعل بحفظك لي عز اليقين دررا يا قلبي الفضاء

dawal hayırlı